ma lan moom ma yéem jaaxal na si mu mu defaat ba sëy si waat ci gi man di di toromante ci sama xel ma nu mu defaat nu mu defaat ba sëy sa ba sëy si waat ci ndaw si xam nga sëmu njëkkoon naa sëy ndaw si boobu ña nga dëkk fële simu mii boobu ña nga nit boobu sax yór ñu man kër bi dugg damaa tiit léegi maasa laa yoroon xaalis nu mu defaat daal ba si ci gi man def fa ay tojaange def fa ay tooxi lu ne lu ne hmm. def si mu toto taj na ko du ma wedd mu ngi maanaam la ci gàttal nax na ko am mbaam mbaam sa fii ñuy dawal yii nii hmm. ba fees ko tong tong ko ay gonee ko vidéo ah. réew mi toj ñu teg ko ci journal yëpp simu muy muy saa saam ko nii di jaay sëmu lu ne def na ko fa lu ma ci gën a naqar yi boo gisee xam nga ndaw si am na doom doom ju mor faakal la hmm. man dama ko bëggoon ndekete simu lu tax mu xañ ma gone ga day raawon booy bi ci suuf kan mooy raawon

léegi boo waxee loolu. daal ndaw si tax ko yow ini kamu aja pak. amoo jabar. jaa jaa man man man man Ngouda ba pare de xamale ma liy danger bi. léegi xam nga luy danger bi. di insister. lu ci wax it yàq na. wallaahi moo ko def. daa ko mu seere ne ko. génn bañ ko génnee man ak li mu dugg a dégg. jaaxal ma mais man jantal maara la. xam nga ma nekk sa waay daa osé. ba pare aisé ndaw si man ñëwaatuma pour takk ko de moo yónnee moom moo yónnee ñu fekk ma fa ma ne tegle samay tànk mu ne ma semu aw ma ku ma mën a àndal ku dul yow xam ngeen ne noobu la man man dañ may wër may wëruma kenn xam nga luy wax mooy gis nga sëy bu tason mhm. ñu ko takkaatee dëggu moyen de fët dañ lay may sabaat te dimmi ndax si bokk bu la may sabaat dama fen man fu ma jaar ku fa jaar taq ba njool ma boo kon nga xaar ma fi yàgg yow moo xam ne njool moo xam ne toujours yaa ngi prison toujours yaa ngi prison yow lépp lay raw ñaata yoon nga dugg cinquante-neuf bi yow bàyyi kii kii ba mu sosoo mineur ba moom na dem léegi. yow mineur léegi daal li gàttal wax ji ak lu ko guddal mooy. li ngeen ma dénk samay xarit ngeen. Hmm. dégg naa seen conseil merci. li ma mën a teg seen loxo daal teg ko seen loxo mooy. dinaa sëy sëy bi. Ah, am télé Papis. Nafi. yaa ngi tëdd. tëdduma de damay sangu. fekk ma duñ jëmm toog. ma jeex na ma jeex na man dama soxla sax. loo ma doyati. dama bëgg nga may wax xaalis damay dem sorti. sorti yàkkan. man kese damaa dégg sànq ñu ngi di wax waxu sorti. kana ana wu ne moom day dem moo tax ma bëggoon nga may wax xaalis ma ma dem. am kaa dégg muy wax téléphone moo xaritam yi. waaw ñuy programme dem sorti léegi muy dem sorti bàyyi la fi. waaw. Papis dama xamee fen dëgg la. soo demul du dem. voilà looloo baax nag. soo demul du dem demal wóor ma aana bu ma ah, dem woo ko. nekkul na fi léegi ñu ngi nekk. waaw ah, dem yow papis nee na ma Adama Ndao da ngeen a bëgg a dem sorti waaw programme ngeen ba pare. waaw loolu de lañu ak sa copine yi. Mhm. maa xam nga ni papis day dem. Ah, na fi mbay lu tax papis di dem. bu papis demul du ngeen dem. yow fi Mbaye yow xam nga jikko papis man dinaa ànd ak samay nawle ànd ak papis bu demee foofu nekk fa di def ay bêtises te man duma ko mën a téye. quel que soit alpha sa deret la munoo nag loo bëgg ma def ko te lu papis gis nga li may gis nii. mën naa rayanteeg moom mais ku ko laal day mel ni sama xol bi nga laal xale la comme yéen sorti ba day dem wala nga toog ci kër gi tànn ci benn. man sax damaa xamul ay jigéen lan la si góor di wuti mu góoral leen. man sax waxul wala boog dangeen ngeen fa war a dajeeg seen fari. ay fi Mbaye. ay aana mbay bu ndaw. man ma dem yow yow da maa xamee ay affaire yow nga xam ni guddi boo tëddee fii. ngunu hmm. ngunu buy téléphone allo waa Gisal allo waa Ismaïl allo Wally Seck allo kii ku nekk ngay waxal. yaa ngi nga ma a topp. waaw ma waxuma loolu sax dama bëggoon nga may ma xaalis xam nga ne bu ñu dem sorti foofu ñu nangu ni papis day dem ba pare. bàyyi loolu. ana mun nga wàcc sama lal kon. papis day dem. waaw kon baax na. day dem. léegi dama laaj ci yére yi ngay sol ak lan ak lan ngay soxla ma may la mais dem. ma orang nga maa jubóolee kayri temps yi sonn ah man tam dama lay chantage waaye ba ñu pare. yaa di teg lu la ah mu ndaw dimbali ma yaay sama yaay mu ndaw dimbali ma sonn naa. fii nga nekkoon di jiiteru naan bëggoo ko. ay kay na sa de. Eh, sama la wàcc wàcc wàccal kenn sama néeg génn. te fayant bi nga doon. voilà dégg nga yéen ñi man ñii man daal xam naa ne réew mi war na noo bàyyi lu yëngu rek ñu adressé ko nit. topp ci benn nit topp ci benn di ŋarte ŋarte mel ni aw ŋar wala kii di revue de kii moom laa gën a bañ moom kii xam naa ne di nga mës a revue de presse rek ñu tàggale sa mbokk ci plateau yi te bu ñuy fen dañuy insister. man de bis bu. Eh, bu daw. nga yaakaar yow boo doon naaw sax du ma la fekk fi ngay dem. mooy eh, yow looy bandi bandi di jaay la def lala. kii lala may fekkee si babi bi yor sama xaalis ba pare di daw di fërërër yaakaar ni man du ma la jàpp. Eh, bu ma sonal damay jox sama xaalis. balaa eh, may bu ma ci sonal yow. dégg nga ngay dàq nit mu dugg ba biir gërëb. violation domicile doyatul ma ñëw nga am ngay ñoddi est-ce que xam nga yow ki ngay waxal. père est-ce que xam nga ki ngay waxal yow. yow booy ñus la laay def léegi nga am ay xam nga. xam nga ma yow père. yow est-ce que xam nga ma yow. man la kalaamu laa. man la semu ndaanaan yow. maa fi dàkk freestyle kuy freestyle fii. freestyle la. xamul li freestyle xaw ma ko. koo xamante ni jàpp paay ak mairie di leen nokku lay def di leen kill nicement te du ci am benn problème. booy àdduna amul solo te koo baalul mënoo ko kii xale la yow xale nga bàyyi leen nii am na loo xam ne du àdduna ah yow ñaata la laa mel. feft la ma yoral. feft ñaata la. feft mooy figi dërëm. figi dërëm nga koy dàqee nii. waaw da ko xeeb. non non xeeb moo ko sama tabac. Ah. mos eh, eh, ma tuuti. Eh, tey de sa maa yow may wax. tooga rek. père da nga kii feft yi. ma si sama tabac di. kos moo ko sax waaye damaa xam ne. ñoom li lañ ko def moom moo bëgg ay tooñ. moom si boppam moo réew rek. imbécile bu ma kattaloo xoonam dégg nga li ma la wax dégg nga bu baax li ma la wax. ay eh, mu soog a toog ne espèce du ngi tàppet la. boo ko deful dara bu génnee. non non coow jibul nga koy booy nga koy yàlla na la yàlla fay. dafa am sens ba indi ma ñoom dof ndaya. non bul booy ma bu leen di kenn. yow koy macha allah yow moom booy xam naa ne ku baax la. booy nee na fukki dërëm la laa mel moom fukki dërëm la ma amee. fukki dërëm. waaw te dama koy jox léegi nag ma dem. ah non bon kay amul problème. amul problème man baa ma gérer ko rek la situation bi. booy bi naa ko nag bu baax man maa dese cooli man maay ñaan de du moom nga ne ñaata la laa mel. fefte mooy la. fukki dërëm père yow xanaa doo dégg. waaw non man kay maa ngi dégg. waaw fukki dërëm la laa mel. teel ñeenti téeméer ko coow di mu jeex. bu ñu ñëwee nañu jël say cën. non non man man maa jëlal booy filistaay jëlal. lan na la yàlla defal jàmm yow moom am nga hmm. parce que yow réseau ba. waaw da fay jaar every time. di ma jaakaroo téléphone de. mais réseau ba yaa fay jaar sama gars sa instant dañuy bëgg di daal sa kaw. Hmm. man maa leen di téye naa leen paa bi sama paa la. pour lan daal sama kaw pour lan. mais pour la li nga ray ma te du mujj fenn nag. lépp loo xalaat dañ ay borom ngeen di nekk voilà. chaque instant dañoo nekk ay xale am suñu doole taxaw si tali bi. Hmm. di lijjanti li ñuy lijjanti. yàlla baax na. ma yow xàmmee nga ma. waaw waaye mais man du ma fa nekk tout temps de. des fois dama fay bàyyi gars yi dem nekk sama yeneen business ci moom bu ñemee nañoo jël sa wéccet. wuy ma ma xam nga li may waxatee nga nii te di rey nit taxaw di osé di ma wax sans gêne ah te yow tàppet nga boo xam say tànk rek nga wóor looy génn ah eh ngay di kii de ñeenti téeméer yi ma jox bul yaakaar dama la kaa may de wala yoruma may may may fay sama 2000 de. lay ah xaw ma ko de ndax man damay soog a sëy si ma maa ngi nii waaw damay sëy te bi ma sëy sëy yàggut ña fa soxoon jóg dem indi ma sama 2000